ndax boo waxee rek mel na ni ñun noo wax waaye Moustapha la kenn xamul noo koy def waa association rahmatal alamin ñi ngi na la toog murit tiijaan xaadir laayeen ñaseen amul ku ci nekkul Moustapha tey ku ma ni woon dinaa teew fii tey lu ne ñaan naa ko sama boroom pour ñëw rek nga gis ma ma ñibbi waaye ñëwuñu sax pour wax Abdoulaat ngir lan ku ne xam na ni tey jii la 4 décembre di ñaanu Sid Lamine Niass ci suba ba tey ñu nekk ci Cheikh Oustaz Hadi ñu yebalaat ñu Cees ñu ñëw fa far match bi tàmbali te ku ne xam na match bi doole ji mu am macha allah waaye Moustapha wax naa sànq ni wax naa sànq ni Sénégal li ñu am te jël ci coupe nañu bàyyi xel ni loolu rek la ñuy jëlee coupe Moustapha xam nga mooy lan. li Serigne Touba bind li El Hadj bind li Cheikh na Cheikh Saad bu bind li maam Amari Ndaak Seck bind li maam Bu Kunta Njaasaan bind Moussa lii rek ci la ñu mën a amee coupe tey jël nga coupe yow xam nga la nga jël coupe dangaa tàntal sa turandoo Mouhamadou Rasulullah yi Moussa teel na de te deux secondes rek lay wax sang bu tedd bii nga xam ni sànq ba tey mi ngi wax lu rafet ma dégg sànq Abdoulaye départ nii nii nii soppay sëriñ Saaliwu mbakke la may la tànt bi ku fi soppul sëñ Saaliwu bu yëkkati sa loxo ku ko soppul laa wax de ñi ko sopp nañu yëkkati seen loxo kon fii ñëpp a sopp sëñ Saaliwu waaye kubba waa ji nax nañu ba jël ko parce que ñëpp jagleen nañ ko ni ko yow yaa sopp sëñ Saaliwu dégg ngeen ma baa ñun ñëpp sopp nañ sëñ Saaliwu de waaye ñun fexe nañ ba kubba jox nañ ko ko te yëguñu ko mooy ñun ñëpp àndandoo nañu d'accord ni daa bëgg sëñ Saaliwu lin xaadatil ujooru wal masaalihu bi tey yi wal jës waaye nii Serigne Saliou wax naa la ni la ñetti miim rek la nañ ko bàyyi xel benn miim bi mooy makk yu fay moo defar kër juma ju rëy jële te Ndakaar ci ndigalu kan xalif général des mourides Serigne Mountakha Masalikul Jinaan mu ñetti miim makk yu Serigne Mountakha Jinaan Moustapha nit lu muy bëgg na doon lii leneen lu nit bëgg lu dul lii perte na da bëgg ñu wax rek waye kaddu yu ma ci wax yu kaddu yu ndaw lay doon olof nday day wax ni njambaandum buy dafa wara a ak match baram pa paamataar ñu ne lutax ñu ndox touru day bette Moustapha dégguloo ma de serigne bi rek kaddu gi ñu ci duggal sërxal moo tax ñuy wax olof dañi njambaanum buy dafa wara a ak match baram lan motax ñu ni touru day bette rew mi ku fi bañ mbàkke gisuma la mbaaw rew mi ku fi bañ si gisuma la mbaaw réew mi ku fi bañ ay dara am nga problème nee naa du alaaji Malick du Serigne Touba doo laaj kan la maam Maara Mbacke kookoo toj réew mi maam Maara Mbacke jur Ahmadou Fari Mata mu jur Mati Mbacke mu jur maam Ousmane Sy mu jur borom géewu wasifa yi Cheikh Seydi Alaaji Malick dégg nga sànq waa ji azka salatin wa taslimin ala qamarin min nuurihi min nuurihi nayluma nil naa min anwaari lépp lu ñuy coppati di ko seddoo di ko sàqami dama ni Moustapha wax naa ba tey ni ku juddoo ci Dakar yaroo ci bisaab am tàntey li moom kenn du la ñaanal forox Moustapha dégguloo ma de su may daanal sama kàddu Pa Matar wax naa ba tey wax naa fu ne wax naa fu ne am naa sens am naa sens man Serigne Mountakha ñaanal na ma deux jours avant màggal maa ko doon li man man Tidiane bi yaakaaruma ku dul Alaaji Maalik waaye lii ma wax jërëjëf jërëjëf sang bi yal yàlla guddal fanam sa fan seen yàlla aar la sàmb la Moustapha ñun waa matal alamin ñun ñëpp ñoo àndandoo wax ni la wax ni la ñu ngi lay sant Moustapha di la gërëm di kontaan ndax fii ay noobul rek a fi toog ay kilifa rek fi toog ma ni Pa Matar ku juddoo ci bisaab yaroo ci dëkk Dakar am tàntay limon kenn du la ñaanal forox toll toll gi moo ñuy jaaxal Abdoulaye fi ma lay joxe sa mikoro ndax ñun ñëwuñu pour waxtaan Abdoulaye siis baaxul Abdoulaye soxor baaxul laaj ma lu tax nee ma Souleymane lu tax xam nga yaa wax ca ca ca wax naa la ko Serigne Touba dafa wax ni laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala allazi yu'zimu mawlaahu bàyyi Serigne Saliou Mbacke bàyyi Serigne Moutada Mbacke bàyyi Serigne Soy bu Mbacke ku ko sopp loxo ca kaw bàkkaar ci suuf moo wax loolu Serigne Touba nee na amuma poos poos amuma poos ma Xaadimu Rasul ku gis poosu Serigne Touba na ma wax poos bu ñu la Serigne Touba moom poos bi wala yëreem sàngam yëreem sàngam poos Serigne Touba am na na ma ku gis rek na ne ma Serigne Touba amoon na yëre bi mbasin la wala nan la pos la amul pos Serigne Touba ne ne yowmal khiyam mbollem kuy sama njabo mbollem kuy sama talibé bul tit bul jaxlé man khadim rasoul dakhaltu ahli wa waxlu tabiatan fi jaybin li afdalil wara Serigne Touba ko wax bëggalee ko talibé mi mam mara Mbàkke jur ko mam mam sa Mamour Anta Sari Serigne Touba li safu la li daal ku ni neexul daal da nga cee bokkul baa nga bëgg a bokk kenn boolewu la sa xol di bi tàmpa di rajo rajo xoo Abdoulaye fi ma lay joxaatee sa micro. Abdoulaye Moustapha la kenn xamul noo koy def loo wax bii wax naan la wax ma xam nga fu may daanele Abdoulaye xam nga fu may daanele ak yow li bari na. sang bi yàlla na yàlla guddal fan waaw kaay xaritoog ku ne nag baax na xaritoog xaritoog Moussa baax na xaritoog Insa baax na xaritoog Youssoufa baax na mais fexeel ba sa xarit yi amul ku tudd Souleymane Ah, maa kii sunu turandoo. laa ilaha illallah. am xarit te amoo xarit bu tudd Souleymane. sa affaire du baax. xanaa xamul Serigne Touba yonent Yàlla Souleymane xaritam la woon. secret bi mu jombalee gars ci biir jinn yi wax nañu ni wax nañu ni yonent Yàlla Souleymane moo ko ko doon dee. ah, ah déggal ayasa minillah inda ah, loolu du zahir de. Iblisu. isnaatahu bi yaawale loolu zahir la. Abdoulaye Serigne Khadim moo la jox ndigal rek ñu jot ci micro bi kii xamuñu nuñ koy def ndax ñee waaye borom camion soble Abdoulaye ba déwén. borom camion soble Abdoulaye ba déwén rek borom camion soble. Abdoulaye Abdoulaye nañ bàyyi ba déwén rek borom camion soble. barki Seydouna Mouhamed kenn du ko si soof. soble si waaw Abdoulaye ba déwén. والصلاة والتعظيم والسلام على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما نفلني تيانا وليس لي عمل ألخاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دعوة النعم دفلتني من أسب العلي رداء ستريش ملبي ووالدي وأشيافي على نبي والي سلام ربنا مصطفى لا ويل نرجوك يا ربنا في الكون قوامتنا بداعة غير مزيجة الأرض بنا بيع الفتول فكون مجيزه ربنا بالفتول على نبي والي اكل في يلغا فكري سلام ربنا داينا يفلتني شيئا يا صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا Yanga fikri. Ifritni çiyanın خديجة وعلي وابن عائشة وأنا بدعوته yago loxo yi ca kaw saaba yago loxo yi ci kaw saaba yago abubakar saaba yago ana umar saaba yago ana usman saaba yago ana ali saaba yago loxo yi ca kaw saaba yago soppi sëñ Babacar Si saaba yago soppi sëñ Babacar Si الله في دارين مرخوبا شيخ ساجي حتى تسير لد الكواني محبوبة الله ما الشق سيقساجي حتى تسير للكواني مهبوبا خال شيخ الخديم الله يولك في دار مرخوبا تسير لدلك الاكوان محبوبة فلم يعني راد القصار لا تسال إلى هرس مجسومة شيخ ساجي لما نراد الغزال تلمان لا تزالوا ناس الأسمى سمع أقل جليلا لا لا مرتبة رفعة وجمالا كاملا بانا قال شيخ سمبا جارمي مي خل جليلا لا مرتبة رفعة وجمالا كاملا بانا أقل شريف شريفا جاهلا هودا وقد بدا وعوى علما وإنفانا أقيم بكريم دمعا كرم ولم يكن دوما بخلا ودوانا خال شيخ سما جار مي خلبيبا سريفا زائرا وودان وقد بدا علما وإرفانا أكرمي من كريم كرم ولم يكن دوما بخل وغدوانا لساك جئتك وارجوها بدون رحمتها كما ينيل المنا سيبا وسبانا وقلت يا زيدي يا كعبة الفقراء سعساجي لله يدرك عاسى وقت الخيانة سعساجي يشفي على عبدك اللقيس قراقي يا سيخ ساجي يا سيخ ساجي يا سيخ ساجي يا سيخ ساجي زاجي يا من فقت خرانا لا سال يولك مولاك المنى ابدا بني سيخ الورى المبكي مولانا زادنا والبيدني خاتبة والوصل للمتاري من جانا جرجف جرجف سلمورسك جان من نحن أننا بسيف كون ديغل لين جور سني خادم باي نينا نان جور سني باكي توري كادو سني باكي بسم الله Well... وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من عمل سيئات سيئاتيني وأعوذ بك رب أن يحضرون بركة بسيرة مبوكي السلام عليكم ورحمة الله نوغي نيو اك دي جان الشيخ محمد المنتخب سونو بروم ياغال كو في تمان اكو وير ba naa li mu am liggéeyal ko Seexul Xaddiim suñu borom kàttanal ko mu defe ko ni mu ko soobee tànn ko njaboot gi yépp di ko ñaanal sëriñ am di mber la mi nga xam ni moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall sunu borom kàttanal ko waaye noonu it lañuy ñuy ñaanal Cheikh Ibrahima Touré mi nga xam ni mooy xalifa dinaa Cheikh yu borom barikalla sunu borom yàggal ko fi te mu wér noonu it la ñuy nuyoo sunu xalifa sunu mag sunu lépp di alxaaji sëriñ xaadim mbay moom Cheikh Massamba moom Cheikh Sadie di sunu xalifa waaye di ko tuubal nag bu baax ci toog gi nga xam ni toogoon na nan ko nu ñu ci kawam muy muy muy muy lu xat ci ñun nag euh, ndax ñun yi dañu koo tàmmut ndax dañuy jànkatu xasida te man nag saa su nekk dama koy wax cër bi nga xam ni sëñ tuba def na ko ci ñun sëñ tuba def na ko ba noppi cër nag mënta weesu doon sëtub Cheikh doon sëtu Cheikh Issa Dieng ba noppi it bokkaat ci Cheikh Sadio Mbaye noppi di jànkatu xasida cër defe naa mënte weesu loolu kon suñ xaadim maa ngi lay bu baax te di la jox sa wàccuwaay di ci barkib Sëñ Tuubaa sunu boroom guddal saw fan sunu boroom mu wéral la yokk la ci barki xasaayit mu mel ni euh, bi may wax la sunu kilifa sunu sëriñ sunu xarit Kamaalu Bamba boroom 444 borom la 9 ak le 10 di sëriñ xaalim Kamal moom sëriñ Subayru moom borom daarul moxti dugg si ci baas bi ñoo ngi koy nuyu bu baax mooy sunu xarit nag di sunu lépp sëriñ xaalim Kamal ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaara te di la ndokkeel bis bi nga xam ni moom la ñu dëgmal yàlla nu ci yàlla yóbbu ak jàmm. ànd it ak sédiment bu kunta nji borom Njaasaan ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu nag bu baax sama mbokk yi ma fi fekk mbokk yi ma fi fekk di sama mbokk yi jàngkati xaside yi ndax man li may wax rek ñoom ñooy samay mbokk ñoom ñi di yëkkati xaside yi ndax ñun amul lu dul xasida yi ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu euh, di ci jiital nag sunu mag sunu xarit sëriñ Serigne Mor Massamba Diop mii toog di ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam wéral ko ci barki xasaay ji noonu la ñuy siyaaree bu baax Serigne Makhtar Fall di siyaaree mbooleem pencum xasaay nga xam ni ñoom ñëpp teew nañ fi ci njiital sëriñ Abdou Rahman Wadd ñoo koy nuyu bu baax a baax. di siyaare Cheikh Abdou Latif Dieng ak mbooleem ñi nga xam ne rek noo ngi ci péncum xasaay te ñu teew ndax sëñ Moustapha yi mii kat daa bokk ci péncum mu yi doon ci jàmbaar lool lii fi teew ci ay jànkat te bokk ci pénc mi yaakaar naa maa ngi doon a gis ñu teew ci bis yu mel nii euh, ginnaaw loolu nag ma ñëw ci cër bi nga xam ni Cheikh Moustapha def na ko suñu digganteek moom ci bis bi yàlla xam na ni dafa baax rek waaye lii mu def nii mu def ko ngir diggante Cheikh Sadji mbay ak Cheikh Aliou ture barikal la ngir la ca xewoon wax na ko léegi sëriñ xaadim mbay mii toog caatum Cheikh Sa Dieye moo ko jur muy sëriñ ma sàmba mbay man mii caatum Cheikh Ali Touré moo ma jur muy sëriñ ma sàmba Touré kon jataay bi bu amee hmm? ñu ba pare ñu tudde ñu it eh, ñu tudde suñuy waajurit caatum sëriñ Mor Anta Sey di Cheikh ma sàmba te sama baay di Cheikh Massamba bi mi ganee jamono Serigne Touba mom la batale won Serigne Massamba la batale won ngir mu tuddu ko Serigne Massamba yi bi mi ñew bopam lako ko won tuddu lata lu jitu lolu Serigne bi joxon na si ali ben téré téere ni ko ko buntu nebo ba bu soxna si amé gan nang ko ubbi ci ko ndakate Serigne bi momit Serigne Massamba la bind ci kayit wowo kon muy ay tubaarkàlla yu ci daje yu bëree euh seigne mustapha yëkkati li ni nu bis bi day yow lan ko dara jaale muy lu roy ci ñun nak wax deug yalla ndax ñun day euh, xamuñu mënuñu waye nak ñaar ñi nga xamni ci ñom ñaar la xol ba tax mu def li muy Cheikh Sa Cheikh Aliou ma ngi ñaan ci barke xasaayid yi yal borom taxaw la la sunu borom sàmm yàlla sunu borom yëkkati la ndax moom day sunu xarit la sunu lépp la yàlla dogal na li muy dogal suñu diggante ak moom di siyaare soxnaam su baax si nga xam ni moom it wax dëgg yàlla sama sama xarit la sama sama lépp la xam naa bu fekkee aawo bi nekku fi rek li ma na la wax ndax man maa ko man na maa ko maa ko maa ko takki woon ah, waaw waaye nag eh, loolu ndigal lañ ci amoon ndax ñun ay murid lañ te ay taalibe lan te it eh, sëñ Moustapha mi day murid boo xam ne rek eh, wax dëgg yàlla war naa mën a am ñeenti soxna ndax murid la te it am ñeenti soxna du dara lu dul bokk wërsëg rek dañ leen di ñaanal kay sunu borom jubóole leen defal leen ndam ba ngërëm li ñu sàkku ci Cheikh Moustapha sunu borom defal leen ko yal na yàlla wéral leen délégation bi nga xam ni nag ñoom laa àndal man wax dëgg yàlla ke ci jiitu di sëriñ Cheikh njaay Ndiaye mi nga xam ni sama xarit la bi ma ko waxee ni ko dañu ma am bis bu nu ma cërale fële ca Tiwaawoon dañu ma man mii maali taal sama oto maa lay yóbbu maa ciy def gaasuwaal yóbbu la indi la te doo ci fay dara yàlla xam na ko muy Cheikh Ibra di ñaan sunu borom guddal aw fanam te wéral ko ndax lii mu ñu defal léegi bu nu ko deful doon yoon wi mën naa metti ci ñun lool kon nag yàlla yàlla taxaw ko yàlla yàlla sàmm ko di siyaare baax sëriñ bàcc fay moom it ci ñu nu àndal ci la bokk di sama xarit di sama lépp moom bi muy ñëw doomam lañ doon maye waaye da koo dagg ñëw ànd ak man ma mujje ko nag ci sama jigéen bi nga xam ni moom laa àndal muy soxna Sofia Saliou mu baax mi nga xam ni lii ma sol nii sax moom moo ko xotti jox ma ko ci sama cant yi may defal Sëñ Tuubaa muy sama jigéen di sama xarit di sama rakk di sama lépp Sëñ Moussa Mbaye nee na yaayam nag di xaritam kon nak Sofia ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax di ñaan neena na sa yaay jigen ju baax la neena na jo xamni foko fek mi ngi yor kaymul alquran di ko jàng boole ko di def ay salatu ala nabi ajja sama rabbatullah ñoo koy ñaanal sun borom guddal aw fanam te wiral ko sëñ abdullah Lahad Aw ñoo ngi lay jaajeufal bu baax ci taxawaay bi euh, ñun nag xam naa bu nu bu nu cëralee lu toll nii te ñuy jànkatu xasida xam naa dama koy ñaan rek ñaari bayit dong lay doon nag ñaari bayit rek ndax mënuma euh, mënumaa téye micro te yëkkatiwuma ci xasida ndax moom lañu te it euh, xañ na it li ñuy def sax taxu ko demee noonu waaye nag ñu terale ko borom dëkk bi di serigne Mbay Si Mansour sunu borom guddal aw fanam ndax man jabot ak ñooy ànd guddi ak ak musara Mbay mi xamne ne leen ñi may àndal ñoom Babacar bu ñom Ngañ ak geey ñom Oustaz Pam jaay sa su nekk guddi ak becc rabbiya li xayri man biya تعلقوا أسد الأخ الأنبياء وجاء ربي لخير من بيا تعلقوا أسد الأخ الأنبياء أكرمهم ربيب عنهم جون من نقم باخ هما نفاؤهم دنيا وغرام بما بيتاتهم المنافئ نجاهم الباخ من النيران يا وأخرى ومن الخسران هرب كل من له سخاء إلى سواي الآيات وجعل أبيالهم بالأنكار بعد الممات كل خير زار لكل من من لكل من بيد من كدر دنيا في يوم الرجاء كل مريد به يلوس وإنه من العزاء مباد تعب زيد الخلب يسول بجاي من إلا يوجع النسول أكرم ربي كل من تلقاه بيا وكل بأمر بيا تالقا الذين أسلموا من جناد دون مسلم هل يقول الله الجلال بعصمة من دلال الله سعد سيادير لا يدرنا بجكره وللمنى يزرنا يقود للقرآن حولا لم يكن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 Gitu. di ma xamal li ni saraam di bàyyi ci batin ma di dom ci ma gisee la matam man samba jaar ma gërëm sama sëriñ dama faram way wi ma way ci wa këram ñoo am gërëm ñoo am xaram kul balaa jilaadi woo kulim muxaddama la woo boole gisee xuma ci woon li la barke mbaanaam di leen yëgal ji ma fi gis te kii ma ku ma fi gis te àndul ak moom ke nga gis dunu fi mbaasagul xorom cheikhu suyooxi ahmada kii moonu tegtal ahmada te di fi kañ muhammada bam dugal ko biir këram cheikhu siyooxi ahmada kii moonu tegtal ahmada te di fi kañ muhammada bam dugal ko biir këram lu may la jël mu ni ko ca sànni ba dootuma ko gis mbaamu labal ko mu ni mes ki ma gisee la ma taam اكسف لي الأسرار في الكتاب وبلادي سوى الجد الهجاب كم الإلهي زاعري وبادني وبنبي جلي بالكوامن إلي ضيف جاهل غريب وإنك الفتاه والمجيب لبت وردني إلى دار سلام وفي الباع الناس جميعا يا سلام ألا يسك في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يات وليس ياتي خلق كمثل سيد ساداتي توجه يا أيها الوساد إلى لسن الأصحاب أوفال اليقدير وسود غني الخدماء أبرامه رب العراب والسماء والله لا يأتي نور الله أعداءه بالمكر والأفاي إن الذي يبارز القهر وعدد المقدم المختار إن لم يتم لله سل جلاله فما له خلا سوى أنكاره اكسب لي الأسرار في الكتاب وبمديسه والتجري جابي كم الإله زاهر وباطن وبلبي جلي بالكوامن إني ضيف جائل الخريب وإنك الفتاه والمجيب لبت وردني إلى دار السلام وبالبع الناس جميعا يا سلام لك تنرى في بالغني فقير فالجلي يا خير من يا خدير جلي إليك لا إلى خيرك ربي فكلي عبدا واخفصني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا عجيتك اليوم وإني موقن بالاستجابة لي وعني مؤمن سللت أنك الإله السند ولم تجد ولا السمول لا أولد دواعي السجم سريع الياد يا مولي ليس له كفى عاد كلي في الدارين كل ما يدل وفيما دنيا كل ما يدل يقتضي الخيور كل ساعه والتقني عزا ولزاع والجار وقلبي أبدا إلى الذي تهيب من الهدى اجعل جميع ما كتبت وما أكتب خير هدى معمما وتف عادي ولساني في الكتاب وكل يجعل خير عجل والثواب لنتم ثوابا في سراب المتعب وفي سهامي وقيامي والمنام هي الفتور كسيامي وكني نومي وفكرتي هي كتنفري هي الجميع ما يكون سائرا مني رداك باتنا الوسائرا كملت يوم سبت في البوري خزيلة فيها مهور الهور هذه خزينة بها جادلت أهل الكتاب وبها خاتلت متقيا بأرداء المولى فإنه سؤال بأولى أجاهد الكفار بالآيات سبل التبات لدى سديد بتشوى والملتخم أقارب تلبق كل مجرم من لم يتب للاعيا نسارا مسلز الفسيل قيلارا توبوا بخلق والله أهد لآخر السورة من ذاك العدد تبلغ بدين إسلامي دين نبي المصطفى الإمامي خد دعا بعمد الجلال نسمي مسليا على الكمال وسيلتي لمالك وجنتي محمد الخير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم إلى عليه ذي العالي وكل من تلا يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو رحمن وهو رحيم خالد الأمان الحمد لله على الكتاب مع السبي مسلم الهتاب سيدنا محمد خير الورى من خال القمة والسورى ثم الصلاة لا والسلام على الذي مني لو أقلام جرجف سنمر مسامبا كندقل سن خادم باي مسري مسامبا مسيخ ساجي نانا ننجوخ كادو بسن مدنين waye seigne khadim mbake kamal mu serigne zubeyru bu mam ci rawam daru muxti Tafa Mbay day teew ca bisam di fa jàng xasaayit Tafa Mbay waxoon ko bis bi mu ñëw teew ci waaye ci yoon la nekk kon sëñ Xaadim Mbàkke Kamal ñu ngi lay ñaanal su borom guddal soo fan wéral say cër ci teewaay bi nga teew ci bisu sëñ Moussa Mbay gii yaag sëñ Omar Mbàkke mi nga àndal ñëw ci jataay bi sëñ Moussa Mbay nee na sant na leen gërëm na leen di ngeen a nekk rek ci aw yoon waaye mi ngi sant délégation soxna Astu Kunta bi nga xam ni ki ko jiite di sëñ siidi Kunta ak sëñ Mohamed Kunta baay bu Diop teew na fi ak ndijaayam Abu Mbaay ànd ak Moodu Mbuub ñoom ñëpp teew fi ngir soxna Astu Kunta digganteem ak Moustapha Mbay kon ndigal li ma sëñ Xaadim Mbay jox mooy nan jox sëñ muñ ñan kàddu gi bismillah amiin amiin barki borom daarul Muxti salaamaaleykum mbokk yi nu may ñu tuuti kàddu gi nuy yëkkati kàddu sëriñ bi la سيرين خادم ميغا خامني موي كليفا جتاي بي ني جيغلو نك نдах كليفا بو تول ني موم تاريو بو خيو ميل بو ميل نون مونونو ييكتي اي كادوم واي نك سيرين توبا مي نو ياكار دافني لا تفعلوا شيئا بخير اسم فالاسم سرتن لخبول سعني تلو رك مونفي moonu nu fi tax a moo moo nu fi tax a ñëw Moustapha Mbaye sëriñ bi mooy yëkkati kàddu jëmee ci yow ma bëgg nga bàyyi loolu ñëw teewlu kàddu yi sëriñ bi mbokk yi khadim mi ngi jotal nuyo nuyo bi nak neena mo wa ko Cheikh sadie gep mom la fi tewal ak sunu wajur wo xamanteni di baye mot sek xasida rakam tok ni ci ginaaw serigne khadim ak waaye sama teewaay tey sëñ xaadim mi laandal ci jataay bi li ko war a lépp mooy day sunu sëriñ xaadim mii doy na nu sëkk ndax sëñ Tuubaa dafa wax ci masaalik ni wax tabiri rijaal xam la sooba wala tuzaayib xumran aw saara xama boo jëlee koo xam ne ëllëg jaalibatu sawaab te loolu jikko yooyu yëpp ak qualité yooyu yëpp mi ngi sëñ xaadim mii walaay bay walaay dëgg la walaay bu ñu kàddu dañ ci sawar kàddu yi may yëkkati ak yëkkati xasida rek laa yemal القران هنا خول المعروف صدقته يتصرخ بو يالا نانغو فايلو اي جيسلو في سلين لا قبل الخلايا الخلق يا عسيم فضل الله من كما سالي كون سيغ خالد نينا نويو بي مونتي جيتال سيغ مباي سي منصور مي بروم دك لي لولا يالا دوغال ndox ko ko wax maam alaaji malik waxti waawon ko waxti waawan boog tudd maam alaaji malik te moo fi nekkal muy sunu kilifa nak ndax seigne Tuubaa mo ne fala taadu man ra'aytum fa'u yukhriju la ilaha illallah tay ndegam dañuy mana magal barab seigne sëñ jaar wala garab gu mossa nga ñëw sukk fa ngir sàkku fa barke te dinga ko fa am ngir wormaal barab ba kon nan ma sëñ Tuubaa ci mbokkam yi ndax wala xadd karam naa bànni aadama ji moo tax ndax garab bi lu mu baax baax maam baax baax moom doomu aadama la yàlla jiital te am na ko wax léegi ñoo bokk maam maaram liñ bokk ñépp xam nañ ko nee ne mi ngi koy jiital ci nuyoo bi di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko ñàkki jaaxaan nañ ko ñëpp tudde di ko dëggu dana ko yàlla may gudd fan may ko wér te lii may wax barke boroom daarul moo te yàlla rek moo tax moo xam naa ay tiijaane ngi toog waaye dama ko wax li waj illaahi taala te dëgg na ndax ñoom ñii ëpp ñuy cofeel ci moom ndax amul benn jeexlu burdu boo xam ne du kër kër kër sëñ Njuul Fuuta lay lay lay toog ba burdu ba jeex ànd ko ak sama sëriñ bi ma jàngal xalil muy oustaz Codé Gueye waa kër sëriñ euh, Basiru Ñang doomam ji fi nekk di ah sëñ Moustapha ci néegam la ñuy bokk nekk te sëñ Tuubaa laa yaakaar <laughs> kon sëñ bi nee na mi ngi koy nuyu. di nuyu bu baax tamit waa kër Cheikh Marouba ki ko fi nekkal Cheikh Moustapha Guèye di nuyu itam bu baax a baax a baax soxna maam Faati bi fi nekkal Cheikh Moustapha Basirou ak sunu yaakaar di kër Cheikh Awa Balla sëñ Xaadim moo fa nekk nuyoo yooyu yëpp nag nee na mi ngi koy tënk di ko teg sa loxo yow mii woote. sëriñ Njuga Siise mi ma jàngal alxuraan dafa wax ne sañ Mouhamadou Lamine Diop Dagana da ko wax ne ko sëñ Tuubaa nee na ko ñun ki nu jàngal sëñ Amadou Lamine ko jàngal sëñ Tuubaa jàngal ko ñaari jataay rek am muy jataay bii ak safaanu bii nee na jataay bii képp ko ko woote suñu borom yow dalay bindal juróom fukki tuyaaba nee na ko wuy si bay dem yóbbaale ñaar fukk juróom nee na sëñ Tuubaa ne ko Amadu Lamin mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax am ñaar fukk ak juróom yooyu benn bi rek mën naa la ba sa famille yëpp ci àjjana kon nuyoo bi sa loxo lañ koy teg ndax yaanu sababal xéewal googu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem délégation yi fi jël kàddu yépp ci ay kilifa dëkk ci dëkk bi nekk ay waa àdduna ndax euh, wabtaqi fii ma ataaka laahu daaral aaxirat waaye nag wala tansa nasiibaka mina dunya ñaar yooyu ànd maire yi fi nekk yëpp jaar fi sama sëriñ bi ku baax kii doon koo jottali. dawoo jàng de sëriñ bi mu ngi jël kàddu googu di ko teg ci loxoom moom mi nga xam ne moo doon jottalil maire bi ak ñi fi nekkoon ñëpp Mamadou Diagne si Mbengue. waaye nee na mbooleem délégation yi ak ñi fi jël kàddu yëpp ki fi des mooy sëriñ bi sëriñ Amadou Sow mu baax mii di taalibu sëriñ Saliou ak ñun ñëpp nee na mi ngi koy teg sa loxo ak sëñ Souleymane mi nga dendal di wax ne mbooleem lu ngeen jàppe sëñ Moustapha ak lu ngeen ko defal moom ngeen ko defal sëñ bi nee na bi ñu tàntee tànt bi ci suba ba léegi képp ku fi dugg rek moom mi nga fi ñëwal nee na li war lool mooy kii taalibeem la xaritam la soppeem la ku ko dégg la ngi nii ku jàpp waa kër Cheikh Sadio yi ngi ku doyloo jëmm mi ngi nii ngir jëmmi Cheikh Sadio làq ngërëmu bàyyam di sëñ bàcc di caatum ma Massamba ak mboolem waa kër seex Sadio yi gépp loolu ma waral tey jii mu bàyyeekoo Mboro ñëw fi ànd ak rakkam yi ak mbokk yi jóge Touba sëñ Mor Seck yi doom yi bàyyi Mor Seck mi ngi nii sëñ Seex kon nee na ku fi ñëw ak teraanga bu fi waaye def def nee na ko ci loxo sëñ Moustapha nee na ci loxoom nga ko teg te moom mi ngi ko teg ci loxoom ëllëg sëñ Touba nee na maamam mooy moo koy séddaleel ay. ay ay ay ay ñamo wa dama bëgg xam japp na nga ne képp kuy sédélé mom bo xaritoog moom mom fande fandé <laughs> boko lébalé dina la ko fay sëñ bi néna ko li ngeen ko lébal ci barki Cheikh sadji dina leen ko fay te yalla nañ ko fekkee noonu ñëpp ya muy fi ci adina yalla dafa leen teraanga dafa leen guddu fan dafa leen wër mbolem lu ngeen bëgg di ko yalla nañ ko yalla defal ci barki khassidi sëñ bi ci topp mooy pincum xasida yi nga xam ne sëñ Abdou Wade moo ko jiite nga xam ne ñu mujjee wax léegi te xasida yi di lépp ndax wali tàqu do abadan xayral maraam la sëñ Tuubaa wax li ngay sàkku li ca gën na mu gëne boo jàppee xasida yi loolu mu loolu loolu la xasida yi womatal nee na kon mu ngi teg nuyoo boobu ak siyaar boobu ci loxol sëñ Abdou Wade dugal ci mboolem ahlu xasida yi fi nek yeb sëñ Assane Thiam ngi sikurullahi sunu wolare le sunu xarit ak sëriñ bi di waxtan sëñ sëñ salou sek alxuraanul karim ñu dàkkanteel ko lo xamne nak mo gën lépp mom alxuraan kon ngir bañ ak tey kàddu gi ak bañ a yàggal bi neena xam nga nag kàllaamal awliyaay laf lasta af am li ànd nii anna anna wa um umu ñii ñoom ñooma ñun ñu na li sëriñ bi bëgg a wax lépp ak li ma wax la woon ak xolom bu sedd moom barke borom daaru mënu mu cee génne lu toll ni tarafatal ay waaye xam naa daal bég na kontaan na te ñaanal na yàlla mboolem ku fi ñëw baa nga amoon yéene yi ñëw baa ngay dégg rajo bi ak foo mën a nekk yàlla na yàlla faj sa aajo sëñ bi nee na mboolem koo xam ne sëñ sawa xam na la nga xam ko baa mu xam mu Moustapha ngir tànt yi te mu sawa xamu ko wala Moustapha xam koo kee te xamu la yow wala xamantewu leen sax yàlla yàlla faj aajo ci barke xaside yi barke sëñ Tuubaa waaw loolu laa waaw dañuy ñëw wax naa ko léegi ànd ak sëñ Malick ñu jaay bopp gi nag jënd di ñoo xam ne <coughs> sëñ bi si Abdoulaye toogal tuuti rek. ah kàddu sëñ bi su ma neexoon wax ba trois te yow kenn du ma man mi wax ak yow. man mi wax ak yow. waa bisimilah kàddu sëñ Xaadim gi nga wax. waaw xaar dama ne man mi wax ak yow. waaw ci kàddu sëñ Xaadim ah, ah. moo tax ñu jël kàddu. waaw ca kon bisimilah maa ngi ñu ok dama ne moom mii oyof na lool te gis gan barke borom daarul moxti laa la wax barke Serigne Touba du ñëpp lay sukkal ma wala su ma la sukkalee dinaa la sukk ngir wan maan la waaye du ñëpp lay nangul sëñ sakul ñu xam la fa pays bi yàlla xam nga rafet ngir képp kuy siiw fu dul payam ba faj ci la def xamaa na gis ko mboolem réew yàlla yi xam te soo ko tuddee fa pays bi yàlla mos kaso fa waaw loolu moom la Sëriñ Tuubaa tënk ci masaalik dane la tasdari al abda li xub imal basi bul gis benn waay nii rek mu sol ay yëre ay weñ biiw ko nga xeeb ko gis nga man bokku na ci sama ada. su ma rombe ku mel non limay may njëkk wax mooy mang lay siar ci sama xol bo de waja maam sa ngërëm bo dul waji mu mucc ci xeb la na tas dalil li imal asi ma atakhadudin wa kusri danasi ni ndax is rubba is euh, rubba abdin Khat ala indal uyun ka annahu xut ay suyabin wasiitoo intazara fil buldaani woo kal xirdi la daa raxmaani nee na bëri waa na borom daraja joo xam ne bu agsi woon fii ñu ñépp jóg ñépp xam turam sëñ Tuubaa na moo golo ñoo yem ci yàlla te nee kii di kii kii nga xeeb ko tànk bu mu jéggi suñ borom taal kanu ci aras dama ne sëñ Xaadim ku oyof la te diis ku ma doon wax man maay ma maa nekk nii xalifa sëñ sa sëñ bàcc mbay caatum Cheikh Sadio yi du ko ndaw de waaye nag yonent bi nee na wa man man man man man tawaddaa lillahi rafaahu llahu